loo gis rek wax ci àddu ci àtte te xamoo nu mu demee ñun ñëpp loolu mënuta a jàll gis nga réew mi yàlla def ko may administration boo xamante ni ñi ci nekk walla boog ñi ëpp ci ñoom ëpp lool nag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 Merci. Merci, chers collègues. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre.